الحمد لله الجزيل النعمة billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa mii di suñu wasila ñu ngi fii tey Touba ci dëkk bu sell di waaj bés bu mag di 18 safar di grand mag de Touba and ci ak waa daara Miftahoul Nasri kër Serigne Touba bu HLM ak waa Tactic point sn ci xew-xew yi fi amee li ko dellu ci 6 safar ba ci 18 safar